xale yi léegi euh, tey xam naa waxtaan wi du mën a yàgg ndax xam ne fu ngeen sedd bi daa metti ba ñu demee nag ba nga xam ne teg nañ ci ab diir baay bi daal di woo nag ndogal mu dikk mu ne ko ndogal mu ne ko naa mu ne ko waa fi mu ne day lu jot jot na gannaaw dee te it sa yaay mag la te fi mu ne xaw ma tey xaw ma suba waaye wala yàlla sa rakk ji kat bu sëyee sa yaay na demaat ci waañ wi ak ci dàgg ji ak ci teen bi kon léegi li mooy war ngaa jéem a takk soxna te doom nga juñu xam ci dëkk bi kon da war a seet ci dëkk bi koo bëgg mu bëgg la nga ñaan ko bu ñu la ko mayee nga indi ko ci kër ndax sa yaay mën a noppalu bu ëllëgee wala yàlla su gisee jëkkër mën a sëy mu ne dana ba yàgg mu ne ko man de bàyyi bu doon sama sago la da ngay seet foo ma dugal rek ma dugg fa waaye du ma tànnal sama bopp baay bi ne ko ah góor day waxtu wane li war a bëgg mooy ndam borom dëkk bi day mi ngi doomam joo xam ne lim koy jaay war nga ko mën a am ndax ñett la koy jaayee nee na jaay wu ko ab juddu jaay wu ko ab taar jaay wu ko alal siitu ca mbokk yaa ji ne ko ah borom dëkk bi day la muy laaj ci doom ji ci ak can moo di fanweer yi dërëmi ngurdu moom nga yóbbu mu seet sa diine seet sa ngor su lépp taxawee mu may la amul yaakaar waaye nag daaw jéeg ba ren day far yaa ngi dër dër yi waaye ku dikk bu la seetee rek gis na sa ngor manqué na mbaa sa diine manqué na te lu ca manqué du la ko may waaye nag ku say morom jari bay da nga war a jari bay wala nga xam ne njëgu bay nga gannaaw say morom dem nañu ñàkk demal soo amee muy ndam boo ñàkkee fekk say moroom mu ne baax na daal di fay jógee daal di wut nag ndey jeeg baay bi ak nijaay ji jàppale ko ba am fan wéy dërëm mi ngurdam daal di ñëw ci borom dëkk bi nuyoog moom jàmm sante moom ne ko ah man kat maay doomi diine ak gëm yàlla ndogal laa tudd samay bokk ma fi yebal nag jox nañ ma fan wéy dërëm ngurdu nee ñu sa doom ji nga xam ne moo di amul yaakaar nga di ko jaayee ngor ak diine ne naa ñëw bëgg si ko soo ma seetee sama ngor ak sama diine mate ko nga may ma ko soo seetee sama ngor ak sama diine matul ci yow ma dem ñibbi borom dëkk bi ne ko am mu ne ko am mu ne ko baax na dinaa la tontu dinaa la dalal berndeel la juróom-ñetti fan su matee danaa xam ndax am nga ngor ak sa diine mate na ko wala am déet daal nañ yóbbul leen ma ko néegu gan mu fekkee ñaari far ya fa ne ñu daal di indi ñetteelu far ba mu fekk si ñaari far yi ñu ñetti far ñu bokk nekk na ca néeg ba borom dëkk ba di leen berndeel seen añ seen reer seen ndékki ak la ci war a ànd jàppoo ko ak ñoom nag ba toogaay ba yàgg benn bis nag ndogal toog ba yàgg mu ne ah ci mu xelam man de waay daal ne gannaaw man sunu kër jege na te ndaw sa fa mu nekk góor du fa dem ndax fa ko baayam def da koo defal ay kër kees kër gi juróom-ñaari kees nga xam ne ay jigéen rek ñooy jege ndaw si mu mel ni ay jaam la am yu jigéen. lu muy def ñoo koy defal ñoo koy toggal ñoo koy defal lépp lu mu soxla waaye kër ga góor du fa dem dañ koy lay kër gi ba mu set wecc tànk bu fa jógee dañuy xool ba xam tànk bu góor la ak jigéen góor du fa dem ndogal daal di nag gannaaw yàgg na no fi te gisuma ndaw si xaw ma ndax ba bëggam déet mën naa fexe def nu ma gisee ndaw si su ma bëggee ma fexe ba ñii fi nekk dellu su ma bëggul ma ñibbi ndax moo gën ñu bokk toogandoo fi ndaw si kenn la te gannaaw fa mu nekk góor du dem naa dem sunu kër sol yëre yi jigéen takk ay jaaru takk ay lam léttu teg ci musóoru ba nuroog jigéen su ma dikkee nuyoo borom dëkk bi mu jàpp ne jigéen laa mu dalal ma ci kër jigéen ñi ma fexe ba gis ndaw si feeñu ko ne man maa ngi nii góor laa yaa ma tax a jóg samay morom nag laa bàyyi ca néeg ba damaa bëgg nga xool bu fekkee ne bëgg nga ma xëyru nu yow soo ma bëggul ma dem ñooñu ñëw waaye dañu faa yàgg lool te sa bàyyi waxu ci nun dara te toogaat bi yàgg sol coroog jigéen nam ko waxee woon léttu takk ay jaaroom daal di musóoru ba nuroog jigéen ngàmbab saagam daal di fay dànqaam loo nag dox doxinu jigéen ñëw ci pénc mi fekk boroom dëkk bi toog ci pénc mi ak i mu kàllaf mu dikk nuyoo ñu fay ko mu daal di ne borom dëkk bi man de yaa ma tax a jóg ndax laa dégg am ci yow yaakaar rek ma soxla woon la am lu ma doon diis si borom dëkk bi ne kon daal gan nga guy wut mu ne ko waaw mu daal di woo kenn ci waa kër gi ne ko yóbbu ko ca këru jigéen ñi mu xaar ma ñu di koy jël daal di koy ubbi nag ci ruqub jigéen ji indi ko fa ruq bi ñu ko indi nag fi la ndaw si nekk te moo di amul yaakaar ba ñu toogee ba reer jot ñu reer guddi jot mu daal di sànni ay bëtam ci biir kër gi nag daal di seen benn néeg boo xam ne néeg ba lampe baa ngay tàkk seen rideau bi gis na nit ñi dugg ko génn mu daal di xam ne ndaw si ñuy seet kat ci néeg bi la nekk mu daal di fay jógee daal di ñëw ci néeg bi ba mu dikkee fekk ndaw si toog ci lal bi mu daal di xëcc ab bang bu gàtt daal di toog nuyu ndaw si jàmm sante ndaw si jàpp ne jigéen la mu jékki-jékki dindi musoor gi dindi jaaro yi koy xool ndaw si jël loxoom teg ci gémmiñam ne ko lii nag mu ne ko man aw farlaa laa ñett lañu ñaar ñaa nga ci néew gan ma bàyyi leen li tax ma def lii nag su ma defutoon lii duma ma la mën a gis doo mën a gis ndax yow fi nga nekk sa bàyyi day bañ ji góor gu fi ñëw moo tax ma sol sa yére yi ba nurug jigéen ma bëgg nag nga xool ma man gis naa la bëgg naa la waaye yow nga xool ba xam ndax bëgg nga ma am déet soo ma bëggee ñee fa des man a yeweeku soo ma bëggul mu mën a génn ñibbi doxe samay soxla waaye yàgg naa fi toogaay bi yàgg na ndaw si ne ko li nga wax dëgg la waaye li ma bëgg mooy nga jóge ci bag bi nga toog ñëw toog fii sama wet ci lal bi ndogal ne ko nag loolu moom su ma ko defee li la sa baay di jaay dama koy ñàkk ndax sa baay nee ngor lay seet ak diine te su ma bokkee yow ab lal te may ñu la kon ngor jeex na ndaw si na ko jugal dem dàq naa la ndogal na ñokket ba bëgg a génn néeg bi taxawaat geesu ndaw si na ko nga dàq ma de ndax na bi ñu dàq la wala nee na góor gu doon ko sa baay waaye damaa bëgg nga wax ma li ma dàqe ma mën koo wax ñee ma fa bàyyi ndax ñoom bu njëkk nga bañ leen a dàq ndaw si ne ko li ma lay dàqee. mooy fekkee man maal tax a jóg nga ne bëgg nga ma sama baay li may jaayee moo ko xam waaye man li ma bëgg maa ko xam su fekkee nag lépp loo may defal bu sama baay àndut doo ko def kon bu nu sëyee itam bu ëllëgee lépp loo may jox bu sama baay d'accord doo ma ko jox te bu bu sëy du neex kon su ma la ñaanut lu may nga dikk toog ci lal bi nga bañ moo tax may dàq naa la ndogal na ñokket daal di toog ci lal bi su ne ko waaw kay lii mën a am daal di jóg nag jël kafteeru café bi daal di koy tàngal jël ñaari kaas yu ndaw xelli ci jël benn jox ndogal muy naan mu jël benn ma ndaw si naan bi ñu naanee ñoom ñaar jékki-jékki na xel mel ni café gi dafa am dorog bu ci nekk maanaam nelawaan dañoo naan rek daal di tëdd nelaw kenn ku nekk ni nga tooge woon nga daal jaaxaan say tànk lang sa bopp wéy ci lal ba fa ñu tëddi nelaw ba guddi gi xaaj ñaari far ya fa desoon kenn ka toog ba yàgg mu ne waaw ñun de waa ñett lañu woon kenn ka demoon seet ndaw si ba nag ni ñëwagul damaa war a jóg jéem a risque a dem seeti ko ba xam dañ koo jàpp wala am ndax ci lu mu nekk daal di jóg ci xaaju guddi gi ubbi ndànk buntu néeg bi daal di jaar nag di tekki nag sàkkit yi di tekki sàkkit yi dugg nag ci wurumbal yi ba ñëw ba ci fi nga xam ne fi la ndaw si nekk naka la agsi daal di xool ba gis néeg bi nga xam ne fi la ndaw si nekk mu daal di indi bi dugg ci biir dikk fekk ndaw si ak waa ji ba tey ñu ngi nelaw yeewawuñu waa ji di xool ndaw si ñoom ñu ngi nelaw rek yëguñ dara muy xool ndaw si ak waa ji di xool ba yàgg mu daal di génne paakaam jàpp lit ci létt ndaw si ne deqet ren ndaw si da nga fa pir rendi ba dara ji sànni ndaw si yëngatuwut sax mu daal jël paaka bi nag tegal ko kii nelaw ci loxoom ngëbal ko ko daal di génnaat ndànk jaar fi mu jaaraatoon ba ñëwaat ci néeg bi nga xam ne ci leen dalaloon fekk fi wenn far wi mu daal di toog na ceel waxu ko fi demoon waxu ko li mu def asamaan set gone jigéen yi nga xam ne ñoo daan defaral ndaw si ndékki di ko defaral néeg bi di ko lal ak di ko fobeere ak di ko lay ñoo dikk nag di indi ndékki li ak di defar ci néeg bi deret ji gàttandu leen muy deret ji nga xam ne bi ñu leen ndaw si deret ji rogalaat ba ne ko jigéen gi doon indi ndékki daal taxaw téye palaat bi def café ji daal di xool gis deret ji mu sànni ay bëtam deret ji jóge ci néeg ba mu teg palaat bi ndànk daal di dox wuti néeg naka la agsi dikk xool ndaw si gis waa ji tëdd paaka bi nekk ci ay loxoom ñu rendi ko mu daal di teg di xool ba yàgg mu daal di wëlbatiku jël loxoom teg ci gémmiñam daal di teg palaat bi ci dëgg tànk yu dëgër daal di ñëw fekk nag borom dëkk bi ci buntu kër bi mu ne ko ah, war ngaa ñëw ci kër ga am na lu fa xew maaka ne ko lu mu ne ko ah, daa mel ni day amul yaakaar dañ ko rendi góor gi maaka na bëri jóg taxaw na ko gees na ko nga ne mu ne ko dafa mel ni amul yaakaar dañ ko rendi mu ne ko rendi mu ne ko waaw mu ne ko ku ko rendi mu ne ko ah yaakaar naa ko fa tëdd yor paaka ba day moom la ndax paaka lañ ko rendee te ma ngaa paaka ba góor gi màkk na bërit notable ba ba mu toogal na bërit ñu jiit li ñoom ñaar dëgg tànk yu dëgër mu daal di waaxu dal di ñëw ci kër gi ñëw ci néeg bi muy néeg amul yaakaar di néeg doom ji daal di indi dugg ci biir daal di taxaw xool gis ñu rendi doom ji gis itam ki tëdd yor paaka bi mu daal di ko kucc kucc mën a kiisi ci tànk moom ko góor gi ndogal na xefeet ci fi tëdd daal xool gis góor gi maaka tiim ko borom dëkk bi mu daal ko waaw yow yaay kan ak loo fi wuta ku rëy kii bi mu ko nee ku rëy kii la soog a geesu gis kooku dee ndogal jóg toog ne ko man maari ndogal doomi soxna suñuy wax gëm yàlla sama baay tuddul diine maa nga dëkk ndaatal firaax kii nag maa ko rey mu ne ko yaa ko rey mu ne ko waa baa ko rey mu ne ko mbaa xam nga ne dañu lay rey mu ne ko waaw ndax ku jàng laa mu ne ko mbaa xam nga ne soo ko reyee ñu rey la sawara ngay dekkee ji mu ne ko waaw waaw mu ne ko jógal mu jóg mu ne ko nañ dem ca penc ma ma dajale waa dëkk bi yépp ñu yemb ma wax leen li nga def soog laa tër nag la ni nga rendee sama doom bi ndogal daal di jóg mu ne ko téyel paak bi ni nga téye woon ndogal téye paak paak baa ngi siit borom dëkk bi jiital ko ak notable bi àndaloon ñu ngi jëm si ci penc bi waa kër gi weñ sax naawut xibaar bi commencé naa jib ñëpp na teg kenn waxatul mel ni kenn nooyeetul picc jooyatul mbaam ŋaaxatul mu mel ni àdduna yi bëgg a tukki ñu sa këral nag ndogal jiital ko daal ñëw ci pénc bi boroom dëkk bi daal di wax nag ne nañ ko wooteel dëkk bi yëpp nañ daje góor gi maa ko toog ba yàgg mu ne ndax dëkk bi yëpp yemb na ñu ne ko dëkk bi yëpp day yemb na amul génn kër goo xam ne nit des na fa mu ne bëgguma màggat sax des ci dëkk bi damaa bëgg tey ñëpp teew ndax ba ma yore dëkk bi ak léegi si fanweeri at ak juróom ci ren guléet maa ngi soog a woote woote bu mel nii moo tax bëgguma kenn manqué na ñëpp teew ñu ne ko kenn manqué wul ñëpp teew nañu mu ne ana Bilaal mu ne ko maa ngi nii mu ne ko yaa daan jottali waxe yàlla kon man ngaa jottali dëggug yàlla mu ne ko waaw waaw mu ne ko waxal ma mbooloo mi ne leen ba ma juddoo ba léegi si man góor gi maaka mosuma am naqar gu day ni sama naqaru tey bi Bilaal jottali mu ne ko waxal ma mbooloo mi nee leen bis ni ki tey dëkk bii nga xam ne laa yilif dem naa ba nga xam ne bëggatuma fi dara tey Bilaal jottali mu ne leen sama doom ji nga xam ne benn képp la woon ci man yàlla dogal na am na ñetti far yu fi ñëwoon di ko bëgg si yëwee ma leen woon ñetti far yooyu nag amuñu lu ñu def lu moy kenn ki ñëw rendi sama doom amul yaakaar mbooloo mi nag kenn koy téye sa sikkim ñii téye seen naw kenn ku nekk tiit ah inna lillahi wa inna ilayhi rajiun rendi ah loolu di ëpp na ah lii awaay kii moo nekk awaay kii moo bon mu daal ne nañ muri amul yaakaar ñu ne ko murit ñu gis ñu rend ko ba dagg si tëg baat ndeysaan ak taar ba ak takkaay la ak melakaan ba ak xeesaay ba mu daal dina mi ngi nii de ki ko rend mu ngi nii mboolem ñëpp daal wëlbatiku nag daal di xool nag jàkkaarloo nag ak nga xam ne moo di ndogal ku nekk naan waaw kii moom dafa néegam da koo tëyulam ab dof laam baal bi ne ko yaa ko yow mu ne waaw mbooloo ma ne ah jooju wax da ñu ne waaw mu ne ko mbaa xam nga dama lay rey ñëpp yi seede ndogal ne ko waaw mbooloo ma ne kii kay rey ci ci dëkk bi day attewoo ci lislaam ku rey ñu rey ko jam ñu natt jam jam ba nam toll ñu jam la ko kon nag kii rey na sama doom dama koy rey mu mel ni waa dëkk bi itam yéemu nañ ci loolu ndax mësu faa am wante daal ànd ceeg lu mën a doon borom dëkk bi joxe na ndigal. jàpp nañu ndogal yeew nañu ko tëral nañu ko bay bëgg a rendi mu yëkkati loxoom daal di ñaan loolu itam lamu ñaan borom dëkk bi ne may leen ku mu wax mu ne ko damaa bëggoon ñaari baakaar yi ma tagale ko day metti ndax biig julli ma gee kon damaa bëggoon nga may ma ma julli gee su ma noppee nga rey borom dëkk bi ne ko ay jullit lanu te loolu yàggatul kon jullil mu daldi xam nag ne moom bi mu mujjee fàttali ko daal mi ngi ci ak laab tey it fitna dab na ko mu daal di julli ñaar rakk ga ko talal ay loxoom yàlla daal di wax ak nag moom xamal ko ne ko nag yàlla maa ngi lay ñaan lii yor yaa ma ci mën a génne te yor yaa mën a xam ne man reyu ma ko waaye mii mënuma ma cee génne te aw ma seede yow mi nga xam ne nag yaa ma bind bind ndaw si bind bàyyi ndaw si te wóor na reyu ko yow laay ñaan ragalu maa dee waaye ragal na maa dee gàcce diw dafa rey jigéen ñu rey ko su ëllëgee muy woy woo xam ne dafa may topp topp samay bopp loolu ma metti seeboo sax bu ëllëgee ñu rey ci ay loxoom raay ci boppam daal di jaaxaan rendi leen borom dëkk bi joxe waat ndigal lam joxe woon na rey leen ñu daal di jël nag jaas ji teg ci baat bi bay waaj a dawal ka nga xam ne moo ko rey nag daal yëkkati loxoom daal di xalaat na ci am xelam ne moom kat ndaw see ko taxoon a jóg tey ngor lañ koy jaayee te moom xam na ne moo rey ndaw si kon bu ne cell ba ñu rey kee kon moom jërtoon muy ñëw di bëgg si ndaw si ndax kon gorewul fii mu nekk nag nga xam ne ndaw si dee na te ku ne maa ko rey kon ku ne maa ko rey goree tax nga wax ko waaye ndaw si taxatut nga wax ko kon goree ngi sa ko jot mu yëkkati loxoom borom dëkk bi ne may leen ko mu ñëw mu daal di jéggat ba agsi naka la ñëw daal di laaj na borom dëkk bi na ko waaw kii lu tax ñu bëgg koo rey mu ne ko dafa rey sama doom ji di amul yaakaar te dëkk bi day woo ci ko rey ñu rey mu ne ko nag reyu ko man mi maa ko rey mu ne ko luy firnde ji mu ne ko kenn du rey nit tëdd fay nelaw waxuma laa dëkk boo xam ne dëkkoo fa doxandéem nga ku fa dëkk sax bu reyee nit day daw waxuma laa ku fa dëkkul kon rey ko man mi maa fa ñëw biig fekk ko mu tëdd ak ndaw si ma génne sama paaka rendi ko jël paaka bi gënal ko ci loxoom génn dem waa dëkk ba xoolante ak mag ñi ñu ne ak ah, ci kat li mu wax yoon na maanaam ñu ne waaw waaw ñu ne mooy dëgg boroom dëkk bi ne kon yewi leen ku jëkk ki te ngeen tër kii ndax man ku rey rek laay rey ñu daal di yewi nag ndogal ndogal daal di jóg taxaw ñu daal di ki nga xam ne moo ko rey yeew ay tànkam yeewi loxoom jël jaas ji teg ci paaka bi teg ci baat bi bay waaj a dawal mu daal yëkkati ay loxoom moom itam borom dëkk bi ne may leen ko ba xam lu muy wax mu daal di ne borom dëkk bi dafa am lu ma lay ñaan soo ma ko mënee may mu ne ko lumu mu ne ko kër kër gi ma doon def bii ngir dugg ci kër gi ak dugg ci néeg bi ak rend ndaw si dafa tax julliwuma timis kon bëgguma yóbbaale àllaaxira borob julli ma bëgg nga may ma ma julli timis su ma noppee nga rey mu ne ko loolu yomb naa muñ jullil ñu ko rey ngi taxaw mu daal di jóg daal di kabar daal di julli bësalmal gàppari ko tàllal ay loxoom yàlla la mu jëkk wax mooy innahu ya'lamul jahra waaye wa maa yaxfa yàlla kat yow yaa xam lu nëbbu yaa xam lu feeñ xam nga xëll ne ndaw si maa rey waaye nag yaa wax ne cépp koo xam ne wax nag dëgg ñu ne waxati nga dëggu yàlla kon dafa mel ni yaay borom dëgg te wax dëgg nag moo mën a jógu ci lii ne su ma noon cellkat daañu rey kee konte kan man rëccoon naa ba noppi kenn du ma rey waaye nag gannaaw yaay borom ak dëgg yow mi moom dëgg ci laa lay ñaane ci sag màggaay ma bañ a dee tey bañ a dee ci lii ndax bëgguma ëllëg si biir sama woy damm diw dafa rey jigéen ñu rey ko su ëllëgee day laaw ci sunu askan bu baax muy baat bu dul fay kon maa ngi lay ñaan yàlla te yow rek yaa mën a may te wax dëggit moom yóbbu ci lii waaye su ma noon cell kenn du ko xam kon maa ngi lay ñaan nga musal ma tey ci deegu teew gi su ëllëgee nga rey gannaaw ku tooñ jéggalu nga jéggal ko ndem dootu ko def tuub naa jéggalu naa tablu ci ay loxoom daal di raay ci kanamam ne rey leen ñu daal di wëlbati tëral fi suuf daal di ñadd nañu ñadde xar jël jaas ci teg ci baat bi bay waaj a dawal ñetteel far bu yëkkati loxoom borom dëkk bi taxaw leen keet kat ci far yi la woon mu daal di jéggat ba agsi daal ne waaw kii lu tax ñu ko rey mu ne ko kii dafa rey sama doom te dëkk bi nun dañuy àtte woo ci diine ku rey ñu rey ku jàmm ñu natt jam-jam ba nu mu toll ñu jàmm la ko gannaaw rey na nag dañu koy rey mu ne ko kon daal lim la xañ doom moo tax nga bëgg ko rey mu ne ko waaw waaw mu ne ko doom dekkee nag mu ne ko sama doom bu dekkee amatuma ci moom soxla bu dekkee ma bàyyi ko mu daal nag ngoro gi soog jot ndax gannaaw yàlla def na man ma xam-xam am ma am xam-xam buy dekkal ko dee su ma négee ba ñu rëy sa ba ñu rey sama graale bi ma dekkal ndaw si kon su ëllëgee su ma jotee ci ndaw si ngor joxuma ko yaa fi nekkee taxafalu moo ma ko jox naa dekkal ndaw si ci sama xam-xam ndaw si jóg di ju ñun ñett ñi nga xam ne ñoo ñu taxaw na jóg ñu taxaw ndaw si xool ki ci bëgg mu sëy ak moom ndax ndaw si ngor lañ koy jaaye kon su ma amee xam-xam bu mën a dekkal ndaw si dekkaluma ko bu ñu reyee sama gëraale bi kon man nekkatuma gor kon jartul may ñëw di bëgg si ndaw si daal di ku ko waxu di ko fekk ndaw si fi ñu ko muur ci pénc mi nga xam ne dañ ko doon bëgg a robi mu daal di agsi daal di bopp bi daal di muri nag càngaayal bopp bi daal di wax na ñetti kàddu tafli ci bopp bi ndaw si fuddutu mel ni ko doon nelaw te yeewu wëlbati ko xool mooy gis mbooloo mi mu wëlbati ko xool ndeyjoor gis mbooloo mi mu daal di di baay bi yónnee ay yére mi indil ko solo ko yére mun a ñoo ko jóg di jow baay bi daal di yónnee nag toogu ndaw si ñëw toog ci toogu bi baay bi toog ci piliyaanam ndaw saa ngi xool nag lu waral lii ak mbooloo mi lan la waaye nag lii la ko baay bi wax amul yaakaar mu ne ko naam baay mu daal di koy nettali li nga xam ne moo xew ba ni ñu ko dekkale ne ko nag ba ma dikkee ca néeg ba fekk ñu rendi la xale góor bi laa fekk ma tëdd ci sa wet paaka bu taq deret nekk ci wetam ci loxoom bi ma ko laajee ko rey kii daf ne ma moom la ma dem ba di ko bëgg rey ki nga xam ne moo ko rey dëggantaan dikk ne lu tax ñu bëgg koo rey ma ne ko dafa rey sama doom mu ne kenn du rey ni tëdd fay nelaw man mi maa fa dem bii maa ko rey ma daal di tëddi kii daal di tëral ki nga xam ne nag moo ko rey bi ma demee bay bëgg rey ñetteelu far bi moo jóg taxaw dikk ne ma xam nga ne moos kenn rey nit tëdd fay nelaw man mi maa ko rey ñetteelu far ba ne man li tax ma ñëw moo di itam bëgg koo dekkal ba ndaw si dekki kon kii moo la dekkal kii moo la rey kii moo geesu nga dim niiw mu ne ndax moom moo la rey kon ñetti far yaa ngi noonu ndaw si yaay tànn yaa xam ndax ki la dekkal ngay tànn yaa xam itam ndax ki nga xam ne dafa geesu fekk nga dim niiw ngay yaa xam itam ndax ki nga xam ne moo la rey ci boppam te nangu ne moo la rey moom ngay tànn ndaw si geesu ndeyjoor yeesu càmmooñ xool ci kanamam daal di baayam ne ko bàyyi mu ne ko naam mu ne ko ndax am naa sañ-sañu wax mu ne ko waaw waaw ndax jox kàddu mu ne ko ndax am naa sañ-sañu tànn ci ma bëgg baayam ne ko waaw waaw ndax moo tax ma woo la mu ne ñokke daal di waaxu ñëw ba ci ki nga xam ne moom moo taxaw ne maa ko rey mu dikk ne bàyyi mu ne ko naam mu ne ko kii day daal jël baaraam teg ci dënab waa ji ne ko kii nga xam ne day moo ma rey ba noppi dem nga xam ne rawoon na ba dara su lu may taxaw deegu bees taxaw moo taxaw dikk ne man mi maa ko rey bàyyi kooku am na gor waaye nag man bàyyi du ma sëy moom ndax jigéen ñaari fan la am muy bis bi mu tooñee ak bis bi nga xamee ne bég na te góor su bégee dekkal la waaye nag bis bu tooñee bis bu meree di nga dee te du la dekkal kon bàyyi man ki nga xam ne moo ma rey mënu maa sëy moom wëlbati ko wax ki nga xam ne moo ko dekkal ne ko bàyyi mu ne ko naa mu ne ko su ma dee waxaat ci àdduna ba na nëgën ni gannaaw yàlla kii ma dekkal la waaye sama àdduna jeexoon na kon def na lu baax waaye nag ci biir mbaax gi dafa am lu ma ciy tiit ëllëg la may tiit mooy nii mu béggee ba dekkal ma su ëllëgee su meree dinaa deet du ma dekkal te jigéen kër gu muy sëy dina fa tooñ kon bàyyi ci mu ma sëy ak moom daal ne gees na ko bàyyi mu ne ko naa mu ne ko kii nga xam ne daal da ma doon jaay ngor ak xam ak diine mu dikk ci néeg bi fekk ma fa man ak moom ba ma ko nee toogal ci lal bi daf ne ma déedéet ndax sa baay ngor la lay jaaye te su ma bokkee yow ab lal te may ñu la kon dootuma nekk gor ma ne ko dàq naa la ngoram teg ci mu ne ma kon wax ma li nga may dàq ma wax ko ñaari far ya ma fa bàyyi ndax nga bañ leen a dàq ma ne ko su ma la lu may nga dikk toog ci lal bi ma yóbbu ma ko ngir ne sama baay waxu ko kon su ëllëgee lu ma lay ñaan soo ma ko soo ma ko bëggee may bu sama baay àndut doo ko may te loolu dub sëy ci la dikkee toog ci lal bi ma xelli ñaari kaasi si kaañaa naan benn jox ko benn xam naa suukar saa ëpp ñu ñëpp ñu mandi mu yeewu gis ñu ñu rey ma nga ne ko kii ku ko rey mu ne man te aram sa ko reyu ma dafa xam ne am na mim yoo xam ne du wàllu gor moo tax mu far nangu ne man la kon su fekkee gor nga may jaayee man baay kii moom jënd ci ngor baay bi ne ko nag kooku nga xam ne moom nga bëgg te ne nga mool jënd ci ngor kooku lañ lay may te kooku nag mooy yow dangaa ñëw ci kër gi ñëw ci néeg bi te amoo ci ndigal waaye nag xel ak xam-xam amaana moo tax nga def waaye li ma bëgg mooy àndal ak ndaw si ngeen dem ci kër gi maa ngi ñëw ndogal ànd ak ndaw si daal di wéy nag ci kër borom dëkk bi borom dëkk ba toog tuuti yow mbooloo ma daal di jóg na ñëw ci kër gi ba mu dikkee la mu jëkk a def mooy dafa daal di woo nag ndogal mu ñëw mu ne ko na nga tudd mu ne ndogal laa tudd mu ne ko foo dëkk mu ne ko maa ngi dëkk dëkk bu ñuy wax dimbi loro mu ne ko kuy sa baay mu ne ko góor gu ñuy wax diine mu ne ko kan mooy sa yaay mu ne ko soxna ñuy wax gëm yàlla mu ne ko loo ñëwut ci dëkk mu ne ko sa doom ji ma taxoon a jóg mu ne ko léegi nag sama doom ji li ma ko doon jaayee yaa ma jox njëgam ngor laa ko doon jaayee jox nga ma ngor ba mat sëkk li ma bëgg mooy nga dem wax sa baay mu seet bis bu mu neex bu mu jàpp su dikkee may jabar mbaa sa baay yebal ndogal ne ko baax na ndogal tàggatoo ak boroom dëkk bi tàggatoo ak amul yaakaar mi nga xam ne moom la doon bëgg si ak yaay amul yaakaar daal jóge nag ca dëkk ba wut si nag dimbi naka la ñëw dimbi ñëwin wi nag xam naa ak coono bi jàpp ko ñëwin wi xaw a mel ni lu foo yooyu lool baay bi yaakaar dafa def ak ngoree di ndey ji yaakaar loolu waaye ba mu nuyoog ñoom jàmm sant ñu laaj ko nag naka yoon wi ak naka diw ak naka ka nga doon bëgg mu xamale na leen nag alhamdulilahi rabbil na yàlla def na wutinaa ko ci ngor ba jot naa ko ci ngor bokk yaa nag soog a bég soog a noyyi mu xamal leen na leen bàyyam daf maa wax ne naa ñëw wax sama baay mu jàpp bis dem mu may ma ko nee na itam su ma ko may daf ma koy jox ndax ñoom duñ may jabar kenn di ko téye baay bi daal di kontaan day ji kontaan rakk bu jigéen ji nga xam ne moo di wàllu yàlla itam daal di kontaan lool nag waa kër ga daal ñoom ñëpp ñu bég ah mu daal di nag xamal baayam ne ko su doon sama sago nag la loolu doon lu yéex